mbokki Sénégal mbokki réew mi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 es ce loolu bokk na ci loo xamante ne dafay doxal làmb. loolu mën na nekk mën na nekk mën nañu boole écurie par écurie ñuy bëri ci seen biir parce que làmb ji métti na métti goo xam ne il foog ñu bëri seen biir bu ñu bërul seen biir du baax tey mayrante bi bëri na bëri na torop dañoo war di bëri seen biir ñuy boole écurie par écurie def ko comme ni ñuy def comme ni ñuy def làmb séeréer yi comme ni ñuy def leneen ak leneen ñu boole leen ñuy bëri ay mbër rek mais bu ñu toogee di xaar ay bi avance loolu tamit du neex. mën nañ tëgg tamit tournoi boo xam ni mbër yi rek ñoo bëre ñi ci seen biir kër yi la ñuy toog seetaan loolu tamit dina doon lu ma neex loolu tamit bu ñu ko defee ci làmb tamit doon na luñ gënal waaw amul kii la amul kii la nañ boole ñëpp ñu bëre xam nga bu supporters yi bu ñu mënee toog seen kër seetaan ñu toog seen kër seetaan ñuy jënd ci téléphone ñu jënd ci téléphone seetaan ba la fi ne jóge fi après ñu xool leen lu ñu def kontaan naa ci yow. waaw jërëjëf ñoo ko bokk waaw merci waay gaan dañoo gisoon euh, fan yi passé ñuy wax équipe Ndakaaru ak équipe Fass ku ci ne xam ne ñaar yooyu ay équipe yu mag lañ mais ñu bëgg leen a boole est-ce que ànd nga ci boole ñaar équipe yu mag yu toll noonu équipe Fass ak équipe Ndakaaru pour boole leen def leen benn. ah mais bon xam nga moom Sénégal moom mooy loolu xam nga ñii dañuy wax ñii di wax fee mais ñoom neen xamante nañ seen biir. te aussi loolu lu mën a nekk la. mën na nekk lu war a mën nekk la quoi. kon bokk na daal ci li nga xamante ni dafay daf daf leen may doole ñoom seen. waaw kay mi ngi noonu comme si ko booloo xam nga ànd parce que ñëpp benn lañu doomu aadama lañu ñoo bokk fu ñu jógee xam nga dañ rafetal quoi moo gën a nice. jaajëf kontaan naa. jaajëf ok merci beaucoup. comme que mbër nga fan yi doon naa dégg ñu wax ne dañuy boole écurie Ndakaar écurie Fass en tant que mbër ñaari écurie yoo xamante ne toll nañ noonu.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 xam nga woo sponsor ku si mel ne Aziz Ndiaye gis nga bërki déew ñu ngi koy invité 2S muy wax ba ba ne moom pare na sax moom pour ñëw xam nga dooleel làmb xam nga ku si mel woon mooy lool entreprise bi mu yor ku si mel diwlin Sodor xam nga moom pare na pour dugal loxoom ci làmb pour jàppale jeunes yi jàppale mbër yi